day war ci réew mi euh, fi tax politique am solo té tan yi tan yi ni buñu japp ni présidence de la république ak élection présidentielle rek moy élection bu am solo ndax député solo moy mon moy wara a président de la république ak gouvernement def ndax politique yu bax la wala baxul ñu mën ci jël ay matuwaay mom moy affecté ressources yi manam euh, xaalisu réew ci budget wax ko fi la ko jubale ci yaram wala eh, jàngale wala feneen eh, bañ ko jëmale ci ay puukare wala ay investissement yoo xam ne amulul askan wi solo donc lu ama am solo mooy assemblée nationale. législature bi génn nag jàppoon nañu ni douzième bi mooy bi nga xam ne 2017 lañ leen faloon mooy yées ci tarixu Sénégal bi treizième bi yéesati donc jot na ñu delloo assemblée nationale gëdd bu mu war a mën a am. ndax réew yu bëri ci àddina bi tey dañ leen naw ndax seeni parlement nu mu taxawee gis nañu keroog rek lu xew Angleterre nga xam ne ay ñooñu premier ministre bi sax bokk ak moom parti ñoom ñoo ko ne yow doyatoo ñu puusal fële ndax taxawaloo réew mi. lii waral assemblée nag am taxawaay bi ci war day ci baax mu am ay député yoo xam ne dañu mot am xam-xam bi am fit bi am jaar-jaar yi am taxawaay bi te bu nga xoolee suñu liste bi jàpp nañ ni mooy liste bu gën ci liste yi ndax. bu ngeen xoolee treize douzième législature bi ñaari député yu ñu jàppoon ni ñëpp d' accord ni ci ñu ci gënoon a xarañ gën ci rafet taxawaay muy Thierno bokkum ak Cheikh Oumar Sy ñu ngi ci suñu liste bi. bu ngeen xoolee législature bii di waaj a jeex Théodore Monteil ak Marème Soda Ndiaye ñu ngi ci. te ñëpp jàpp nañ tamit ñoom seen taxawaay ak seen xam-xam ak ràññee nañ ko lool ci malgré treizième législature bi lañ ciy tudd docteur Abdourahmane Diouf moo xam ne jaratul présenté mu ngi ci. suñu liste bi juge bi nga xamne ne moom moo je démissionne d'une justice qui a démissionné mom mo Ibrahima Dem mu ngi ci suñu liste bi Thierno Bocoum mu ngi ci liste bi ak man mi Thierno Alassane Sall ak ñeneen ak ñeneen borom xam-xam yo xamne ne euh, ku euh, ñu ngi ci suñu liste yi donc bu def ci walum taxway bu fekkee ni denk ngeen ñooñu assemblée lim bu doy wóor na leen ni duñ len wor te dinañ leen taxaw na mu waree béykat bi dinañ ci gis boppam sàmm gi dina ci gis boppam mécanicien bi dina ci gis boppam ñëpp dinañ gis seen bopp parce que ñii ay gor la loo xam ne jomm nañu dem assemblée nationale di am taxawaay yoo xam ne dañ leen di ci euh, xarab wala di leen ñu ci rus ëllëg bu loolu weesoo am lim bu baax ak nit ñu baax baax na lool waaye am programme aussi ak gis-gis baax na te defal nañ leen benn programme boo xam ne sama naatangoo docteur Abdourahmane Diouf dina leen ko gën a faram-fàcceel te bis yi ñëw ci biir campagne bi yëpp dinañ ci jukki ay poñ yu yaatu yaatu yaatu parce que dañu bëgg campagne électorale bi ngeen déglu ñu bu baax may ñu xel mbay ñu nopp ndax dañu bëgg ñun waxtaanee fu tolluwaay réew mi ak proposition yi ñu ci am ngir demale réew mi kanam assemblée nationale encore une fois lu ama am solo la bu fekkonte ni député yi mot nañu seen taxawaay di xew ci hôpitaux yi amoon Linguère warutul woon répété wu bay am Tiwaawoon ci anam yu yées ndax bu boobaa dinañ ci def ñoom seen rap eh, eh, inspection ya ca war jël ci ay matawaay ya ci war pour mu loolu bañ a amati ñu ko yemale rek ci problème personnel waaye problème systémique la donc assemblée nationale moo ci waroon saytu napp yi nga xam ne ñu ngi jooy tout le temps ni contrat yi fi nekk dëppawul ak intérêt euh, économie Sénégal dëppawul ak seen intérêt ak contrat minier yi ak yeneen xeetu contrat yëpp ci wàllum ndox meeg yooyu yëpp dina am na luñ ci wax lu ama am solo jàpp naa ne loolu ëllëg dina am ku ci ñëw wax ci lu yaatu yaatu mbokk Sénégal surtout suñu mbokk xale yi jeunes yi réew mi yàlla am na lum ñu denk dénk nañu ay koom yu bëri dénk nañu or dénk nañu zircon dénk nañu ressources yu bëri mu ngi dépendre ci ñun ak choix yu ñuy def tànneef yu ñuy def pour que Sénégal nekk réew moo xam ne duñ fi koy daw dañuy daw di ko wut si parce que doomu Sénégal yi dañu taxaw liggéey ba yëkkati raayu Sénégal ci àdduna bi yëpp loolu la ñu bëgg ñun waa Aar Sénégal ñu ngi leen di gërëm di leen sant